di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel sunu actualité de la semaine ngeen ci ànd ak kan El Hadj Mouhamadou Fadal ñu gën koo xam ci Leuz moo fa yéene ànd ak yéen tey ci émission actualité de la semaine. ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñëpp rek dañuy daal di dikk rek ci li nga xamante ni tey moom la ñu fas yéenee waxtaanee ñu nekk yéen. muy ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi jamono bi euh, rawatina ci semaine bi nga xamante ni ci la ñu nekk muy euh, affaire Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko loolu fi ñuy fi ñuy doore mooy ku nekk dégg na li nga xamante ni mooy audio yi wër ci euh, internet bi fu nekk mu fay jaar ci jamono ji ñu toll nii li ma ci waxoon nag laa ciy waxaat du ma tàyyi di ci wax parce que depuis ba mbir mi dooree ba tey la ma ca waxoon du ma ci jóg ndax gisaguma lu mën a tax ma jóg ci Euh, ndax li nga xamante ni mooy mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, boo ko xoolee d'après bi ñu dégloo Adji Sarr waaye itam bi ñu dégloo ki nga xamante ni mooy usmaan Sonko dangay xam ne mbir mi mbiru complot kese la ndax Adji Sarr dañ koo def comme nit koo xamante ni day dikk rek di enregistrer di wax loo xamante ni te damay faral di wax ne li nga fekkee heure boo koy wax rek euh, day ngay am envie di ko wax te doo ci am benn njuumte kon heure boo waxee ñu lay dicté rek daanaka mbir mi maîtriser woo ko Ousmane Sonko itam génn wax wax joo xamante ni boo ko déggee da ngay xam ne wax ji wax ju yanu maanaa la ndax da koo teg fu wóor te loolu ba tey ji ci lañ nekk mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko bi mu dooree Adji Sarr génn euh, wax daa bi mu waxee daal di waat ci ñi nga xamante ni mooy ñaseeni parce que moom foofu la bokk euh, loolu tamit bi mu amee bàyyi ñas ñu gën koo xam ci MC Niass génn défendre Adji Sarr euh, bi mu koy défendre sax ñu bëri wax nañu Adji Sarr warul giiñ ci ñaseeni euh, parce que li muy wax dara du ci dëgg moom tamit bi mu dikkee di ko défendre ana lan moo tax mu koy défendre parce que da koy défendre ndax taalibeem la taalibeem la moo tax mu koy défendre bi mu ko defendree tamit défendre ko pour damay dikk faral ko non non dikk défendre pour un jour mu xool réalité bi fan la féete parce que li mu koy défendre lépp mu ngi xool kan moo nekk ci dëgg te wàccu ci benn yoon euh, ndax Adji Sarr man dama jàpp ne euh, mbiru viol ñaari sénégalais ñoo ko séq war nañ koo mën a régler sérieusement mais kon bu ñu demee tey ba Adji Sarr am pouvoir boo xamante ni amul kenn koo xamante ni moment bi am na ko te viol yi bëri na fi lool te kenn constaté wul benn nit bu am sécurité ci loolu euh, ndax Adji Sarr bu nekkoon ci dëgg dina jar ñu koy sécurité dina jar muy ay sécurité genre yooyu loolu nag du ci moom ci ginnaaw la euh, ndax chaque jour ñu gis ay preuves yoo xamante ni mbir mi day wane ne mbirum complot kese la te complot boobu noonu à chaque fois dañu koy dañu koy dañuy wane preuve yi ndax sécurité aji sar fi mu toll nii ñi ko mën a am bariwul ndax Adji Sarr euh, li nga xamante ni mooy euh, journal Le Monde ak Jeune Afrique ak RFI biñ fi dikkee ñu ne bi ñu fi dikkee kenn ci ñoom wax na ana lan la wax wax na de euh, ministre bi moo jox autorisation pour ñu mën a dem ci Adisar kon ça veut dire que Adisar pour nga dem ci il faut que nga jaar ci euh, ministre bi mu autoriser la pour nga dem en plus am na trois ñoo xamante ni élément dip lañu yoo xamante ni ñooy ñooy garder Adisar ci sécurité am loolu yëpp day am lu muy firndeel ci mbir mi ci mbiru affaire Adisar Sonko da ngay xam ne toujours rek mbir mi am na lu ci lalu li ci lalu nag euh, ba tey leeragul waaye ay preuve mu ngi génn ndax bu ngeen gisee ki nga xamante ni mooy Baye ñas euh, ñu gën koo xam ci MC Niass euh, boo gisee tey jii mu génne ay audio naan audio yi Adji Sarr la genre yooyu parce que dañ ko autorisé mu dem ci Adji Sarr pour waxtaan ak moom ana lan moo tax ñu autorisé ko mu dem ci Adji Sarr parce que mbir mi bi mu dooree mbir mi bi muy door moom dañoo jàppoon ne maanaam dafa ñëw pour défendre Adji Sarr rien que pour défendre Adji Sarr non non mais dafa dikk di défendre Adji Sarr en tant que talibem en tant que talibem mais aussi di ko défendre pour xool dëgg bi fan la féete. loolu moo taxoon gars yi am confiance ci moom daal di koy libéré mu daal di dem mën a gis Adji Sarr waxtaan ak Adji Sarr léegi nag euh, bi mu demee waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Adji Rabi Sarr léegi ci la amee yooyu yëpp nga xamante ni tey jii moo mooy circuler ci réseaux sociaux yi ci la ci la waxtaanee ak moom mais bi mu koy waxtaan ak mu ngi enregistré. enregistrement yooyu noonu tey moo génn parce que sénégalais dafa am habitude booy waxte wane wu preuve du ko gëm surtout nga nekk kilifa am na yooyu boo ko wax faaw nga wane preuve moo tax enregistrement yooyu tey ji mu am ko ci Adji saar enregistrement yooyu nag am na ci ñoo xamante ni dégg ngeen leen ci ñu wax am na ci ñoo xamante ni tamit wax nañ ca wax joo xamante ni maanaam jéggi na dayoo euh, képp koo xamante ni déglu nga audio yi waroo cee mën a contester dara parce que Sénégal nag moom contester fi la dëkk waaye dëgg kenn du ko gis naan li du dëgg euh, donte ni audio yi moom audio yu wér la ndax lu feeñ la lu ñëpp gis la euh, ba tax na ki nga xamante ni mooy euh, Baye Niass ñu gën koo xam ci MC Niass bi mu demee enregistré ko génne audio yi te audio yi des na lu bëree bari léegi nag li may laaj maanaam audio yooyu nga xamante ni am na ñoo xamante dégg nañ leen ci ñuy wax ñuy wax ak Adji Sarr naan ko projet bi des na trois trois mois li ci des matul trois mois ñu réglé ko ñu wutal la bien nga génn réew mi maanaam Adji Sarr mooy kan maanaam moom dañ ko viole rek wala nit ñi dañoo am leneen lu luñ ci mbubboo loo xamante ni tey jii moom la ñu bëgg euh, euh, utiliser pour daaneel ki nga xamante ni mooy seen adversaire Ousmane Sonko man nag toujours loolu laay wax parce que du gis ay preuve ba pare di gëm leneen moo tax mënuma gëm ne viole am na fa parce que lu tax mun moo gëm à chaque fois preuve yi génn day war ne viol amu fa ba ci audio boobu fii te ñu ñu tudd ci benn tur moom itam mu wax ca wax joo xamante ni wax ji day baar doy waar la parce que Adji Sarr sa doom la maanaam Adji Sarr sa moroomu doom la am nga doom bu toll ni moom ba pare nga jël Adji Sarr di ko utiliser te bu ngeen dégloo wax ji day mel ni Adji saar fi mu nekk neexu ko aji saar fi mu nekk neex ko bëgg na génn parce que biir audio bi mu ngi naan ko aji fii dara jarul nga fi nga fiy tëb di daanu di gaañu di fi def ay risques yoo xamante ni jaru ko yow da nga nekk nit koo xamante ni bokkatoo ak ñëpp booy dem resto sax dañ la war a préparer booy génn ci mbedd di dem xew dañ la war a préparer nekkatoo kii que ce ci réew mi danga nekk koo xamante ni toujours dañ la war a sécuriser da nga da nga bu mat sëkk ba fooy dem rek dañ koy dañ koy dañ koy lijjanti Adji Sarr mooy kan ba léegi lépp rek Adji Sarr moom mbir mi lu ci génne la bëgg ndax à chaque fois day def yoo xamante ni da cee bëgg a génn mais nag fi mu nekk liñ naan liñ naan liñ naan euh, euh, li la ci dugal génnew la ci loolu moo ci dal aj aji aji Rabi Sarr euh, ba tax na kooku ñu cité mu dem ñu naan génn ñuy génne góor ñi di tëj bunt bi di fay ay kilim di di di ay ventilo ma taala ventilo bi ñu soxla mu ventilo ñu fay ñu kilim bi mu ne soxla ma kilim ak lanaat ñu ne mu ne xaaram fay sama téléphone pourquoi muy fay téléphone pour bañ ko ko déranger ana lan lay def foofu procureur am na ci foofu role bu rëy a rëy boo xamante ni moom la ci war a liggéey parce que fii Sénégal la euh, euh, justice nay def liggéeyam justice nay def liggéeyam loo xamante ni Sénégal yëpp dégg nañ ko Sénégal yëpp xam ne lii mooy li am dama ciy def parce que loolu noonu tey jii bu bu fekkoon tey benn euh, Ousmane ko moo ko def. bala moo tëdd danañ ko jëli réglé ko kon ana lan mooy lan lay xaar ci jëli jëmm jooju nga xamante ni moo doon def loolu moo tëju ci biir rek di faylu clim ak ay ventilo di fay téléphone ak genre yooyu ana lan la doon def foofu noonu ana lan la doon def moo ko Adji Sarr loolu dañ ko war a xam justice dafa war a def foofu liggéeyam ak ñi nga xamante ni tey ñoom la àndaloon ci liggéey bi maanaam ñi nga xamante ni complot bi ñoom la àndaloon parce que mbir moo gis rek am na bopp te kooku noonu moo moo jiite complot bi léegi et justice procureur na jóg def jàpp ko tëj ba pare continuer def enquête am parce que am na lu fi xewoon muy 14 personnes yi nga xamante ni ñoo deewoon ci manifestation bi ak ñi nga xamante ne taaloon nañ seen ay bërëbu liggéeyukaay ak ñi nga xamante ni yàqule woon nañ seen ay matériel ñoo ñépp complot bi moo ko waralan ñoo ñépp complot bi moo nekk responsable bi nga xamante ni tey moo waraloon moo waral euh, nit ñi ñàkk seen bakkan nit ñi perte ci seen ay biens et tout ça kon loolu noonu tey ji warul nekk loo xamante ni dañ koy dikk def ko mu hasard comme nii parce que tey ji li may li may li faral di wax rek tey ji nii Euh, ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko euh, mbir mi lu mu def ba mu leer da ko koy jaral parce que c'est le moment mu leer ndax xam na ne mbir mi ay complot la complot boobu nag dañ ko war a teg mu leer lépp feeñ ñu xam kan moo nekkoon ci mbir mi kan moo nekkoon euh, ki nga xamante ni mooy responsable parce que mbir mi mbir mi instant bi feeñ na foofu laay wax li nga xamante ni mooy jëmm jooju def na ko tamit nañ ci nañ ci nañ ci wax projet bi des na 3 mois gën ngaa tuuti mu mu mu réglé ko ñu génne ko mu dem fan la jëm extérieur ndax lan ndax liñ ko loolu daa bokkoon ci li nga xamante ni mooy accord yi ñu waxoon ki nga xamante ni mooy Adji Raby Sarr euh, gars yi euh, li nga xamante ni nag dañ koy waxtaane toujours parce que réew mi réew ñëpp la ku nekk da ci am wàll te nañu bàyyi di xeex ay adversaire politique kiy falu yàlla moo ko xam kiy falu fii yàlla moo ko xam yàlla préparer na ku nekk li nga war a nekk kon nañuy rafetal mbir mi tey te te ki nga xamante ni mooy victime bi mooy Adji Raby Sarr lañ ko dugal lépp amul lu mu ci comprendre comprendre ci dara dara dara dara dara parce que victime la ci mbir mi donc doyal na sëkk sëkk sëkk ci mbir mi ana lan moo tax génnewuñu ko mu dem ci ay mbokkam ana lan moo tax ay mbokkam mënuñu gis aji saar parce que sécurité bi ñu nekk bëgguñu kenn gis aji Sarr di génne ay ay ay preuve ci Adji Sarr MC Niass mi nga xamante ni moo génnee parce que dañoo amoon confiance ci moom ndax dafa dikkoon pour défendre Adji Sarr mais dañoo jàppoon da koy défendre rien que pour défendre fekk da koy défendre pour xam de ba ba fekk muy xam dëgg gi fan la féete bi mu trouvé dëgg bi tey jii génn na wax ko Sénégal yépp dégg ko gars yi soyez sérieux mbir mi mu ngi bëgg a mu ngi bëgg xorom en plus euh, ñu dikk ci li nga xamante ni euh, fi tamit ci biir semaine bi muy euh, Ahmed Aydara moom itam mu démissionné ci ci ci ci Sen TV mu nekk démission boo xamante ni man bettu man personnellement bettu parce que yàgg naa koy waxtaane euh, ndax euh, Sénégal moo làmboo noonu bëgguñu adversaire rawat rawatuma nag adversaire boo xamante ni dañuy ba jël seen xaalis di ko fay kooku nuñ ko mën a pexeele dañ koy pexeele ba tax na mbir mi euh, ki nga xamante ni kenn xamul fu mu far maanaam kenn xamul fu mu bokk parti au pouvoir ñu ngi dal ci kawam Euh, parti pou parti opposant bi ñu ngi dal ci kawam opposant bi a ngi dal ci kawam parti au mu ngi dal ci kawam kenn xamul fu mu bokk muy kan Bougane Gueye Dany kooku noonu mosuma bett ke ne mën na dàq ki nga xamante ni mooy Ahmed dara mais nag Ahmed Aydara démissionnel na boppam pourquoi parce que nit la koo xamante ni ku dëggu la ci lim ñu wan nit la koo xamante ni aussi réew mi moo ko iteel daray caaxaan itteelu ko kon kooku noonu tey bu ñëwee di def si liggéeyam ba war a def revue de presse am nga coupé signalam dougal publicité moom mu démissionné man dama ko ci félicité ndax bu fekkoon man damay démissioné ndax lool moy aduna nit ki day am fulla ci bopam nit ki day gëm bopam mais aussi nit ki day xam mom moy kan nit ki day xam mom moy kan dem bi mu dem ni man dama ko ci félicité te damay koy rafetlu parce que ki nga xamante moy mooy Bougane Gueye euh, la fois passée génn ne su ma parce que ma koy fayte te dàqu ma ko te bu doon Macky Sall mu dàq mais dàqoo ko mais wane nga preuve bo xamante ni war na dem parce que signe nga ko def signe boobu nga ko def moo tax mu dem kon yow génnoo ci mbir mi te lii nii euh, loo xamante ni lu ñuy rafetlu la parce que gars yi bëgguñu ku leen sonal mais nag lu ñaaw la euh, pourquoi mu ñaaw parce que euh, tey jii ana nan ngay dégloo ñu ne benn journaliste moo sonal tey jii ki nga xamante ni mooy pouvoir bi wala opposant moo leen sonal tey bañ raje ko maanaam ci fi mu doon liggéey mu nekk lu salte loo xamante ni maanaam di ko dégg sax nit ñi di ko waxtaane dafa ñaaw dafa ñaaw politique gu Sénégal dañ ko war a organiser waat politique bi dañ koo war a organiser parce que parce bi fi ñu ko teg du foofu waxoon naa ko la fois passée ki nga xamante ni mooy falu yàlla moo koy préparer d'abord kon ñun mënuñu préparer kenn mënuñu préparer kenn yàlla rek mooy préparer ki nga xamante ni moo fi war a toog kon nañuy fexe mbir mi di rafet te mbiru aji Sarr nañ ca taxaw parce que dafa am ñoo xam ne dañ ca ñàkk seen bakkan te ñooñu seen ay waajur daf leen a yaakaaroon ginnaaw yàlla ñoom lañ yaakaaroon ñooy xëy di liggéey di indil seen ay waajur ñu ciy dund kon ñooñu noonu bu ñu leen rayee ci mbir moo xamante ni mbiru ñàkk fayda la mbiru kompaloo la loolu dañ ko war a leeral te mbir mi leer na xanaa kay procureur moom war a taxaw def li nga xamante ni tey jii mooy rôlam ci mbir mi parce que euh, c'est le moment mu jóg def taxaw ci mbir mi régler mbir mi mbir une bonne fois pour toutes parce que dañoo sonn ci kaawu Adji Raby Ousmane Sonko ba kañ te toujours nga gis ay preuves yoo xamante day wane mbir mi ay caaxaan kese mbir mi ay ay ay ay complot kese complot nag ba nit ñi di ci faatu nit ñi di ci c'est le moment nag ñu arrêté ko régler ko mu jeex tàkk ku nekk xam fi nga xamante dëgg bi mais toujours nga procès bi procès bi léegi mais ba sérieux soyez sérieux réew mi réewu ñëpp la réew mi réewu ñëpp la bàyyi leen adversaire politique yi ngeen di gal parce que fii ku fi toog yàlla moo la fi teg ku fi toog yàlla moo la fi teg kon bu ñu bu ñu bu ñu jël politique bi di ci ut ay yu salte yoo xamante ni keneen ku ko dégg nekkul lu rafet nekkul lu kenn di rafetlu ci ci ci moment bi ñu toll nii en tout cas euh, c'est bizarre salte na trop te politique gu Sénégal doy na waar jéggi na dayo euh, de tout façon daal euh, ki nga xamante ni moo daan moo daan faylu ventilo ak kilim ak di fay téléphone am nañu ko lijjanti tee ko ci lijjanti ko ñi àndalu ci complot bi ñëpp jàpp leen tëj ñu réglé ko mu jeex tàkk parce que c'est le moment yëf yi leer na ku bëggut mu leer sa bopp dootu leer ñi nga xamante ne ñu ngi wax naan. MC Niass warta na publier warta na def loolu dafa war a suturaal kii genre yooyu non non suturaal na Adji Sarr parce que Adji Sarr moo bëgg a jóg fa mu nekk dafa doyal sëkk ci mbir mi moo tax mu leeral mbir mi xamal bopp xamal askan wi ne lee lépp ay caaxaani kese la dara du ci dëgg waaw Ousmane Sonko violé wu ko loolu la jàkkaarloo MC Niass wax ko kon kooku noonu nag doyal na ci mbir mi loolu moo tax mu jël risque wax ak MC pour MC jàppale ko ci combat boobu noonu ba tax na tey jii nii audio yooyu circulé ci réseaux sociaux yi ku nekk di ci jot ñii di critiquer naan du dëgg ak man dama yaakaar sénégalais yi dafa am lu leen daal li nga xamante ni euh, mooy audio bi bi bi bi wër képp koo xamante ni da koo weddi man jàpp naa ne yow yow yow yow nitu nit ku naafeq nga parce que parce que dafa nekk lu leer lu leer la donc gars yi mbir mi mu ngi noonu euh, euh, Fallou Fall la woon Alliance Leuz Baol l'homme qui dénonce les instituts de la société ci rajo Baol Média FM ngeen ko mën koo am ci YouTube bi tamit Euh, ci Baol Média TV euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox di daje ci beneen euh, actualité aussi mais aussi ci beneen émission ñu ngi leen di jëfal di sant ñëpp di gërëm ñëpp jaa ngeen jëf.